ci Pambod Oly Pambod. ana ma fekkee ka laay woo nga soo xalee sa baay bu jëwalee sa baay borom baay na jaamee acca moo ngi noonu salaamaaleykum. Aca moo ngi noonu at bi maa ngi waaj a sifflé ci troisième combat de la soirée mu tombé dimanche 26 octobre 2022 Djibson Production moo ñu fi indi. si diggante Reug Reug bu Rebeuss nekk si équipe Rebeuss ak kii di frontière nekk Yeumbeul Marin Rebeuss est-ce que di nga yegg lay wax tey Rebeuss est-ce que dina àgg frontière ba at ka ñaari mbëre ngi leetoo Reug Reug bu Rebeuss moo ngeeme nga mu ñuul li dafa mel ni moo gën a nekk ndaama frontière moo diwo susi moo diwo susi se ñaari mbër ya nga lewtoo bu ngeen suqontee rek combat bi jeex ñaari mbër ya nga lewtoo abi bu sunu kanam eh, eh. fayu na mu cokkaas mu fayu mu cokkaasaat mu fayu ko ci nee nga déet ko ci nee nga déet teel <laughs> mu ci baa ngay bëre rëbës eh rëbës ngay laaw rëbës ngay laaw rëbësu laaw bu mu laaw ko ci mooy jóg eh, na tànk ba déedéet <laughs> demul eh frontière frontière dina ba ci biir ba taxaw eh rëbës tukki na ko eh découragé na coach ba découragé na oh coach ba na ñëwal ñëwal xoolal ma li supporter xoolal ma xale bi xoolal ma supporter yi <laughs> ah, kii kan la moo ngay oh xale bu xoolal ma supporter yi xale supporter maa ngi ciy gis nii frontière frontière demal